rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk jullit yi gannaaw buñ jullee sant bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jiital suñu nuyoo si suñu sëriñ suñu xalifa Pape Cheikh Tidiane Niass di ñaan yàlla yal na yàlla gën a dëgëral taxawaayam ginnaaw loolu ñëw nañ ci seen xadis di jour ngeen koy am sag leen di fii si Barham Universel Media di wax ne tey suñu xadis ñu ngi ko jëlee ci ki nga xamante ne moom mooy abi hurayra an abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala iza maata al insanu inqata amaluhu illa min salaasa sadaqatu jaariyatun wa ilmun yanfa'u bihi wa waladu saalihu yaduhu lahu rawaawul muslim tey nag ñu ngi jëlee suñu xadis ci ki nga xamante ne benn saxaaba bi nga xam ne ñu ngi koy wax abu hurayrata nee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne doomu aadama bi bu faatoo nee na in qatalat amaluhu illa min salaasa nee na liggéeyam wala boo jëfam yépp dagg nañ ba mu des ñett yi mu ne bu si njëkk moom mooy asadaqatu jaariya muy sarax gi nga xamante ne dafay wéy dafay continuer boo génnee àdduna mu mu lu mel ni nga tabax li nga xamante ne moom mooy école wala nga gas li nga xamante ne moom mooy teen wala boog nga wala gas li nga xamante ne moom mooy teen wala nga jëmbat li nga xamante ne moom mooy garab loolu la ñuy wax sadaqatu jaariya nee na al ilmun yan faw bihi xam-xam bi nga xamante ne dafay jëriñ maanaam nga keree dara jàngal ko nit mu daal di si jëriñoo di si fajee soxlam ne na loolu tamit day des boo génnee àdduna waaye ñetteel bi al waladu saalih yadu lahu euh, doom bi nga xamante ne doom bu baax la boo xam ne dalay ñaanal boo fi nekkatul euh, xadis bi nag ñu ko jëlee ci ki nga xamante ne moom mooy muslim kon mbokk loolu moo nekkoon si seen عليك صلاة الله ثم السلام ربنا